mbokk yi ñaari xale yaa ngi noonu ci diggi géew bi combat bi dox ci diggante Cheikh Super Diamono ak Ziza Cheikh Super Diamono bi mu fi mujj moo ngi mujjee bee ki nga xamante mooy Mamor Ziza bi mu fi mujj moo ngi mujjee bee ki nga xamante ni mooy Petit Ñaa xale yaa ngi noonu ci diggi géew bi Cheikh Super Diamono arbitre bi sifflé na Cheikh Super Diamono moo ñu féetee à gauche. Ziza moo ñu féete à droite Ziza nga tee loxo am na lu muy léem wala boog dafay ñaan xale yaa ngi noonu ci digg géew bi bàyyi ji la noo gisee ñaari xale yi. Ousseyn ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk wane na ni dafa bëgg combat bi muy Ziza muy Cheikh Super Jamono waaye ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk fii la mujjee ak ndam Ziza fii la mujjee am ndam ci kaw xale bi dëkk yëmbal. Petit Niang Petit Niang Cheikh Super Jamono fii la mujjee am ndam. ci kaw xale bi dëkk Fass muy kan. Mamor Ousseyn loolooy làmb ñoom ñaar ñëpp ñu nekk ay mbër yoo xamante ni fi mu bi komba déclenché la ci ñoom ñaar ku ci nekk boo daanee war ngaa mën a am grand combat bi ku ci nekk boo daanee grand combat bi diggante Takké ak Pape Ndoye ku ci daanu mën nga koo am kon ñoom ñaari xale yi en tout cas lu mën a xew mooy kenn warul def erreur ndax bis bi tey dafa am solo ci ñoom ñaar ñëpp. kenn warul def ndax bés am solo ci ñoom ñaar ñoom ñaar ñoom ñoo jàmmaarloo xas-xas ku nekk wane na bëgg nga combat bi waaye sànq bi ma demee ci ki xamante ne mooy Ziza nee na ma jaan mi màttaguma jaan mi nag borom daaw yaakaar moo ko moom waaye kii de seex boo ko xoolee xam ne bëgg na làmb ji te ànd naag dal ak teey moom li koy may ndam xam na ko Ziza la koy may ndam xam na ko waaye Ziza nee na ma mag laa moom mooy xale dama ko yéen bés bi waaye est-ce que dina bu ko ko yéenee kii nga xamante ne mooy seex du jël làmb yi ñoom ñaari noonu ci digg géew bi arbitre baa bëri leen ñoo ngay demee wet. Ziza dafa bëgg a génn génn na lu mu bëgg a def dafa am lu muy tekki wala daa am lu muy déglu cey làmb ay tegtal la ba keroog làmb di jeex day jël avertissement moom Ziza am na benn avertissement arbitre bi sifflé waat na Ziza Cheikh Super Diamono. Ousseyn Ziza li muy def ci làmb ji ànduma ci. lu tax ànduloo ci. parce que du Cheikh Super Diamono ngay bëreel xale ak mag Ziza xale la Cheikh xale la na war a bëree. taxaw wane boppam ci làmb ji wane ni natangoom ci làmb du Cheikh Super Jamono ndax Ziza lu mën a xew mooy yàgg na ci làmb kon boo buy buy bëreeg Cheikh Super Jamono foo mu jël làmb ji am foo xamante ne da ko fay teg sortie délibérée bii mu jël tegu ko fenn vraiment Cheikh mu ngi taxaw rek concentré wu ci làmb ji mu wane ni moom it dafa bëgg làmb ji waaye kenn xamul lu mu indi Ziza tamit kenn xamagul lu mu indi en tout cas li mën a xew mooy làmb ji war naa am xeex war naa mën a am bëre ndax loolu mooy neexal làmb ji ndax ñoom ñaar ñëpp ay xale lañ gis nga li ma la doon wax sànni na moom léegi. Cheikh sànni na ku wala boog Ziza sànni na ku mais dalul. dalul Ousseyn parce que Cheikh daa fermé garde bi di déglu Ziza fi mu toll nii Cheikh fi mu toll nii li mu bëgg rek mooy Ziza xeex mu jiwal ak moom daw jëli tànk bi su doon maay Ziza dama koy may distance. ba pare di xool Cheikh Super Jamono ndànk di déplacé wu ndànk di jël gis nga avertissement ñoom ñaar fi mu toll nii Ziza am na deux Cheikh am na benn gis nga ñoom ñaar ñu ngi noonu dañoo war a laale parce que combat xale la ndax combat wu xale Ouzin pour mu neex faw bu arbitre bëre rek ñu laale ñoom ñaar loolu mooy wane ni boo daanee sa morom sax ñu ne noo adversaire am du ñii mais boo bëree moom combat bi yàgg loolu même boo amee ndam dañ naa ax ah, daan na rek que. da ko dafa juum mu daan ko man daal bëgg naa ci xale arbitre prix rek ngeen wane seen bopp ñoom ñaar. doo ci mën a xam ba xam ko ci mooy ñi ma gisee seex seex andi na doole Ziza andi na doole mais seex boo ko xoolee nii da nga yaakaar ne liggéeyul waaye saa bu jàppante adversaire am nga xam ne mbokk yi waaj na Ziza eh, Ziza même na léegi. Cheikh wàcc ba tolloog moom Ziza dafa mel ni ku bëgg a xeex ak Cheikh Super Jamono. loolu mooy yoonu combat bi bu doon maay Ziza damay xeex ak Cheikh Super Jamono mais xeex bi dama koy teg ci yoon ndax Cheikh li mu bëgg mooy gis nga lii la bëgg Ziza wuy si ko ci bëri te Ziza lii muy wane nii arrangé wu ko ndax bu Cheikh jékki-jékki rek agressé ko dox ci koom dina la dóor coup boo xam ne yaakaaroo ko woon sax ci làmb ndax Cheikh bëre bi mooy avantage am mais Ziza xeex bi mooy avantage am ñoom ñaar fi mu ci nekk. war naa mën a am noo mën a dérouler sa combat ba am ci ndam ci ñoom ñaari xale yi. su ma déggee ni ngay waxee mooy Cheikh Super Diamono bëre bee ko arrangé kii di mën na bëre waaye xeex bi mooy avantage am tey ci làmb ji bàyyi ji. parce que njool la Ziza li mu sutee Cheikh bari na te bu doon maay Ziza Ziza nu mu toll nii Ousseyn doole ji ëpp na noonu. combat bi mujj fii boo xoolee ni mu bëree. ak ni mu daanee nga xam ne doole bi ëpp na noonu gis nga. cokkaat Cheikh ko les coups. waaw mais Ziza gën a dal sax bu Cheikh bi li koy waral mooy Cheikh Ziza taxawaay bi gis nga njool bi mu taay bi mu am bu doxee tànk sàcc Cheikh rek bu ko dóoree coup bi mën naa dal mais xeex bi arrangé wu ko gis nga jàppante nañ ñoom ñaar jàppante nañ Ousseyn. Cheikh jàpp na Ziza jàpp na waaye mbokk yi booy xeex booy xool Ziza jàppul waaye Cheikh am na loxo ci ngemb Ziza ngay dóor. maay moom nag Ziza damay xeex rek damay jàpp ba pare di dóor ci suuf ay uppercut di dóor pour Cheikh su. pour Cheikh Super Jamono siggi est-ce que loolu wóor na ndax loolu mooy lekkam parce que loolu mooy combat bi fi mu toll nii mooy jàpp di dóor ay uppercut bu Cheikh siggi bu Cheikh siggee nga doog a bëre mais Cheikh ni muy def nii tôt ou mun na laa tuur wër la ndomba parce que ndam li mu am bii passé noonu la ko amee dafa mën a bëre moom Cheikh Super Jamono daa mën a bëre ndaanaan la ci bëre li mu war a ci wane ci bëre ba léegi moom Cheikh Super Jamono waneeku ko te saa su bu daanee rek nga gis nga la ma la doon wax dóor rek mooy arrangé visa euh, dóor rek. mais bi ma gisee làmb yi kii di seex dafa concentré wu ci làmb ji moom ëpp. Uh-huh. waaw parce que visa lay bëreel. waaw doo yaa metti bu bu dëkk dóor la woon fayoo ko tas. maa la wax parce ñoom ñaar ku ci nekk dafa war a xeex. mais visa fi mu tol nii li mu bëgg mooy combat bi seex xeex mu mën a moom gis nga. bëtt na ko waaye baaxul. seex fi mu bëgg jaaree du foofu la war a jaaree Ousseyn. parce que visa fi mu jàpp ci loxo bi foofu bu bàyyiwut loxo bi fii ak rëccu seex mënu koo bët. déedéet mënu koo bët ñoom ñaar en tout cas lu mën a xew mooy dinañ xeex dinañ bëre mais ku ci def erreur bu ndaw tuuti sa morom exploité la daan la ci làmb ji dem ñibbi. Ziza ngay dóor Ziza ngay wax ci suuf waaye seexal nga jàpp fa mu jàpp ne ko du ma bàyyi Ziza Seex Super Jamono làmb ngi noonu ñoom ñaar ku ci nekk jàpp na. am nga loxo ci ngemb Ziza ngay dóor Ziza bàyyil doomu jàmbur jo ngay dóor Ziza Cheikh Super Diamono Ziza Cheikh a ngi jàpp rek ne tek Ziza ngay dóor fa muy dóor baaxul abit baa ngay wax ak moom foofu kenn du fa dóor Ziza Cheikh Super Diamono génn ci combat bi Ousseyn faw mu xeex ndax su su bàyyee seex conscience am tranquille rek mun na am lu ko bett ci làmb ji mais la fait ko muy dóor xelu seex bi di réer rek li mu bëgg dina ko am mais seex actuellement li tax xeexul moom it am na lu muy togg loolu muy togg moom la Ziza war a fexe fexe fexe ba xañ ko seex ndax seex ndaanaan la bërëb bi moo ko arrangé te bi mu jàppee ba léegi mu ngi xool ban buntu la mën a def pour daan Ziza li ma la wax sànq mooy Ziza ni mu toll nii doole ji ëpp na loolu ni mu toll ëpp na noonu parce que ñu ci bari dañuy trompé wu ci Ziza état de forme bi mu tollu fekk ëpp na doole ju mu am ëpp na loolu kon loolu seex nag fi mu toll nii pour mu génn si faw mu def ndànk rek faw mu jàpp ba bare di déglu faw mu jàpp di bëre faw mu jàpp ba gis turu doog a doog doog a bëre. waa seex seexa ngay demee moo ngay xëcc digg géew bi di xool ay tànkam sànq ba léegi moo ngi làmb plaqué ba waaye doxul ndax plaqué ba daa ñorul seexa ngi sëgg jàpp ndengeñ Ziza jàpp na benn loxo. day rocci benn loxo dóor jàppaat rocci waat benn loxo dóor jàppaat waaye Cheikh am na ñaari loxo ci ngemb gis nga Ziza dóoraat na dóor na dóoraat dóoraat na Ziza ngay dóor mais bàyyi ji di dóor yi muy dóor ñu si bàyyi dalu est-ce que du perte énergie. waaw loolu laay ragal parce que Ziza dóor yi muy dóor te dóoru ko fi mu ko war a dóor bu yàggee mun naa perte énergie bu yàggee Cheikh mun na gën di am confiance. ndax bu booy dóor ba dóoratoo looy jàpp ni kii sonn na. jongale jongale na ko mais jongale bi daanu Ziza. ndax Cheikh Ziza li mu ko sutee dafa xaw a bari. Cheikh fi mu toll nii beneen kele la mën a def. tante ko mais Ziza bu doon maay moom Ousseyn saa ma jàppee rek dóor. jël na na ko daan na daan na ko lu ma la waxoon Ousseyn. lu ma la waxoon lu ma la waxoon Cheikh. nee na ko kaay waatal. nee na ko kaay waatal. nee daan na ko. ndeysaan nee na ko waatal. ndeysaan oh Cheikh daan na Cheikh Ziza sportif la ndeysaan am na ndam mais sportif la Cheikh tey wane waat na Ouzin leneen ci làmb li ma la doon wax am na cër ci làmb moom Cheikh wane na ne am na cër ci làmb parce que ku yi ku ko recevoir oon te tey